ñun suñu problème mooy duñu am euh, un différent euh, benn différent ak euh, mairie bu Ross Béthio tool yii di suñu toolu wëy jur ñu doon nag suñu wëy jur yi doon ci yëngatu di ci daan suñu doole bay ay jamono ñëw ancien maire Babacar Diop ñëw indi fi un plan d'urbanisation depuis bu moom Babacar bu mu nekkee au pouvoir bi mu fi ñëwee ñu ni d'accord noonu si ndax dëkk mooy dàq dàq toll bi yàlla defee loolu ñu dem ci quartier yi def comme d'autres quartiers ñu jéem investir seet ñi nga xam ni am nañu droit ci loo avec les conseils de quartier et l'ensemble de les et aussi d'autres membres yi nga xam ne ñu ngi bokk ci conseil municipal bi bi ñu paree ñu jël ñu samp benn kuréel jël benn liste joxe ko sous trésorier bu ñuy wax bu avec un coordinateur wax ci ñu dem ay ñu dafa un plan cadastral ki bi pour chaque personne def bi le numéro pour dama a rek ndax pour jël temps bi pour pour temps

du ko du ko respecté maire Bekkaay Diop jox en maintes reprises maintes reprises maintes reprises ay ay ay rendez-vous bu ñu ñëw ñu waxtaan ak ay nit ñi nga xam ne dans son staff pour mu ñu représenter lépp lu mun wax bu ñu demee dara du ci am bu ñu demee conclusion zéro léegi nag ñu toog bay tey ñu ñëw ñu gis ci ay sarsu suuf ci suñuy tool yi loolu moo tax nun ñu mobiliser nun gàdd ga

mais fekk comme moi Fos fi mu li nekk ba ngeen pare ngeen def bi may pour ma pour ma wax ba mu demee ba muy valider euh, on a 80 quelques personnes yo xam 115 cent quinze versants quatre vingt ay nar lañu ñu joxu leen dara. lolou motax tax ñun ñu am vraiment on a le cœur meurtri ñu xamni ki dafa genre discrimination lolou lay dawal boobu légui nak ñun topp nañu ko mais maire mi ngi def li muy def ndax ngi ñu ngi joxe ñu bay ñu ngi dugg ci suñu tool yi te lolou tool yi.

assurance yooyu buñu ko joxee ñu mën def ak mom ci kaw ñu ñu mëna d'accord ci lycée mais bu ko defal nun duñ su d'accord accord nag moom bañ ci rek dara hein? man limay wax état bi moy waaw je laisse je lance un appel à monsieur le président da ma ngi ma ngi lancer appel ci président mm, son excellence Macky Sall mu ñew mu auditer ñu foncier bi ci Ross Béthio maire bi ak staffam li ñuy def tegul ci yoon fi yëpp daggati nañu ko caxati caxaninu

Paral sama dajé bi fi suñu dajé bi fi conseillère de quartier la gàdd ga santé ba 1 légui sama quartier bu amé lu lay naqadi di ñaxtu il faut que ma jog and ak ñom loro waral sama taxaway fi li ñu ñaxtu moy sen tolu mam yi fi né ñuy jël di dag dagg jox ay nit ñom sa bo amé say tolu mam buñ la dédommagé wul sax normalement ci li ñu waxoon li bi di ñun dañu ne même bu amul dédommagement ma ñuy dagal kenn ku fi am sa tolu mam yow lañuy dagal ba paré bu desee ñi si des nag ñu avancé di dem mais ñun ñi nga xam ne suñuy doom ñi ngi ci biir gàdd gi gàdd xanaa gàdd gi xanaa naar yi bokkuñu si sanca bi xanaa naar yi ñoom duñu ay nit gàdd gi suñuy doom suñuy doom yu góor ku nekk yaa ngi sa kër pap kenn ci ñoom amul kër te kër yi dañu ko dagg ñun ku nekk sa da nga verse say doom dañu verse ñun suñuy doom kenn si ñoom génnul te ñëpp a verse am ni ñi ngi ci biir sanca bi verse wuñu te jox jot nañu seeni loo te verse wuñu dërëm jot nañu seen i loo té ñun dañuy verser suñu doon verser ku nekk yaangi sa kër papa amoo kër 35000 lañu verser 35200 bu nee na jëy lañ ko verser bu nee na jëy mooy pharmacien bi ñun daal Macky Sall dañu bëgg mu dimbali ñu ndax ci njabotam lañu bok sonn nañu té li fi mu jëm du neex négocier nañu ba sonn waye fu mu jëm du neex dé parce que li mom kèn du ko nangu xana bakkan bu teud rek mais duñ ko nangu mom ndax li nga mom say mam mom ko nga xey gis ka yow say doom verser nangu verser sen xaliss te sen alalu mam ñu verser sen xaliss ba paré ñu daggal ño xamni verser wuñu sax lolu c'est pas normal Macky Sall dañ koy lancer appel nañu jappalé ñun si njabotam lañu bok suñu suñu maire Bekay Diop la yëg na mbir mi bu ba tey àdduwu ci waxu ci dara Bekay Diop gàdd gi si njabootam la ñu ndax Bekay Ross Béthio la dëkk Bécaye def naa lu laal gàdd gi rek war na ko laal ñun pere nañu pour def lépp bañuñu ci dara dara lañ ci bañul waaw ndax woo nañu leen ci jàmm nanguwuñu woo nañ leen ci waxtaan nanguwuñu léegi ñun kay dañuy dem ba jeex rek duñ bàyyi dara